moom teraanga la rek mais du ne du lislaam mais dafa dem ba nga xam ne léegi dafa sonal nit ñi ndax ni mu sonalee nit ñi da ngay gis ka nga xam ne dafay sëy dooleem demewul noonu doole jëkkëram demewul noonu doole fa mu jóge tam demewul noonu mais dem ba nga xam ne yanu na ko teg pois ba nga xam ne àttanu ko day dem ba nga xam ne day doon priorité si moom te vraiment dafa naa teraanga warul diis. ndax suukaru koor boo ko mënee rek danga koy def mais boo xoolee léegi surtout actuelle génération gi nu toll boo ko deful day mel na da nga xam day mel na xas la si yow mu doon la nga xam ni lu tiis ndax teraanga ba nga xamee ni danga koy mën def ko boo ko deful mu doon gàcc si yow wala mu doon xas si yow wala defet si yow vraiment loolu day metti day metti ndax am na tey ña nga xam ne ñoo ngi si kër yi di sëy xat nañu loolu ndax tey koor bu jotee bëgg nañ ko am na nañu yéene bi mais la nga xam ne yow mënoo ko sa borom kër mënu ko sa ndey ji nga xam ne tam moo lay jàppale muur la ndax ku mu doon sa sagar sa doom fu mu nekk di sëy nga fekk ka fa nga jàppale ka mais ku si nekk xam na ni jamono ji metti na donc si conjoncture mondiale kon donc am na pression familiale ba nga xam ni ñun dañu ko war teggi bu ma nee ñun mooy yaay yi ñun ñii ñooy yaay yi ñooy goro yi suukaru koor yi mën na génn si ñun dem suñu ay sëyu doom mën na dugg jóge tamit si sëyu faneen ñëw dugg si ñun mais dem na ba nga xam ne suukaru koor daal teraanga lañ ko defoon waaye léegi nekkatul teraanga ndax boo ko mënee da koy def waaye boo ko mënul xas lay doon wala gàcce lay doon mu doon lu metti nag mu doon la nga xam ne nag lislaam santaane wu ko diine santaane wu ko dara santaane la wu ko teraanga rek la woon mais teraanga ji daal dem na ba nga xam ne nag mu ngi bëgg am doole mu jaaxal ñun ñii di ay waajur yi jaaxal na torop torop torop torop bu dee ku ko am moom amul problème ku mu doon sa sago sa doom fu mu nekk di sëy wala nga nekk fa di sëy teraanga dong nga fay def ak lu rafet surtout ñun ñii nga xam ne ay doomu ndar lu ñun ku ñu xam si teraanga la ñu xam ak def lu baax mais yow ni nga ko mënee tey di ko def wala di defal sa doom est ce que man mii tey man mën naa ko te bu ma ko deful nu xas ma mu mën ma yàqal nag lu bëri sama sëy mën ma yàqal lu bëri sama biir njaboot ndax tey dem nañu ba nga xam ne da gis ñaari peccorgo yu nekk si biir kër di sëy kii ëpp doole doole ndax doole yamul yàlla si boppam moo bind sàkk te yemalewul jox na kii doole yaa ngiy liggéey sa jëkkër mi ngiy liggéey yow tey mën nga joxe loolu keneen ka nga xam ne peccer go la ma ngi sa biir kër ga bëgg na ko mais munu ko dangay dem ba nga xam ne seen doom yi du ñuy dem ba nga xam ni dañ leen di xàjjale ndax Sénégal dem nañu ba nga xam ni seetatuñu jukko seetatuñu ngor seetatuñu éducation mais bii la ñu seet pour ñoom yaakaar na ni ku leen dul defal teraanga rek yow doo sëy lu baax doo jur lu baax kon donc loolu muy catastrophique ba nga xam ne mu ngi jël tegu suñu kaw vraiment muy doon la nga xam ne metti na torop xamuñu nag nan la ñuy def ba génn si bu dee ko si am fulla na man dama koy wax de sama bopp kii taxaw xam na li may wax man pression sociale kenn duma ko teg du ma ko teg sama ay doom noonu laa leen yare du ma ko tegoo du ma nangu keneen tamit jóge sa àll ba teg ma ka il suffit que ma mën ko dama koy def bu ko mënul tamit du ma ko def du ma yàqal dara du ma génneel dara nag sama biir néegu sëy du yàq dara tamit si li ma yaakaar sama biir néegu sëyu ay doom mais xale yi moom affaire bi moom daf leen impacté bu baax a baax a baax dem ba nga xam ni moom dootul teraanga mais dafa mel na droit la droit la ba nga xam ni goro yi dañ koy laaj te li ma si gën naqari problème bi yëpp nag jigéen ñi la góor ñi sa ñëkk a mën gëmuñu loolu même buñ ko mënee gëmuñu ko dangay gis ka nga xam ne am na ko sax mais jabaram bu ko laajee dafa naan ko mën gëm ma lool effectivement ma ànd seeg ñoom nag ma ànd seeg ñoom ndax jamono ji nekk métti na métti ga nga xam ne bu la añ waree reer war la ah feebar fajo war la ak conjoncture mondiale bii nu nekk nii vraiment am na ya nga xam ne ay priorité la du ay priorité donc waaw góor ñi ñoom wax dëgg yàlla côté boobu moom du ma leen si blâmer mais problème bi yëpp ñun ñi jigéen lañ te loolu nag lanu war teggi jël ko faxas ka teg ka fale ndax jigéen ñi ñu ñii ñooy goro yi ñooy yaay yi ñooy lépp bu sëy yu defaroo mën nañ ko defar mais la plupart sëy yi si yàqu li si ëpp ñun goro yi la te dara teguñu ko lu dul pression familiale bi nga xam ne jël nañ ko teg ko suñu doom yi teg ko suñu goro yi man de duma ko nangu man man de sama ay goro man ku ma ko si indil sax damay ruus billaahi barke borom tubaa sama ay goro yi ma am ñoo ngi seen kër jëkkër di sëy ku ma si indil ndogu boo ñëwee la nga ma jox man dinaa préparer lu toll noonu wala lu ko jege jox la ka te fu ma toll dama leen di wax ni man lii teguma leen ka ndax man toog bi ngeen toog seen biiri kër di sëy ak seen jëkkër la mu am kenn xamu ko la mu ñàkk kenn xamu ko man loolu rek daf ma doy li ñuy ñaax si mbokku jigéen yi mooy nu arrêté lii rek ndax jamono ji dafa toll fa nga xam ni dafa metti nee naa leen ñoo ngi si conjoncture mondiale ku si nekk xam na ceeb lu muy jar gaz lu muy jar suukar lu muy jar tey loo doon jënde fukki dërëm te yaa ngi koy jënde téeméer te li am sama kër moo am sa kër moo am fépp kon donc ñu ñii di jigéen di ay yaay di ay goro ñu ñoo war wàññi lu bari wàññi boobu wàcc ba sunu ay doom te xale yi tamit nanu am fulla bu leen seen jëkkër yi takkee si farata yàlla ak suuna Muhammad ku mu doon sasago nga def teraanga mais teraanga boo ko mënul bu mu la yàqal sa sëy bu mu la yàqal sa digganteeg sa borom kër lu toll naka tarfateeg ay ni duma ko aayal de duma ni teraanga baaxul mais ku ko am naka joxe ku ko amul bu mu ko sonal